jigéen bi nag taalibu bu jigéen bi moom nu mu war a nekk ak boroom këram beneen bunta ngi noonu soxna si li jëkk ci la ko war am kersa jigéen ju rusul boroom këram baaxul waaye soxna soo xam ne sa borom kër bu yëkkatee ba tam nga ne ko xàjj moom mooy njëkk a xef mooy njëkk a xef yooyu jigéen baaxul xilatul mumaaraat jigéen du bëgg a dàng sant boroom këram lu boroom këram wax rek mu tontu ko yooyu jigéen nit baaxul lu soo mu soomu taatili abrihi bokk na ci melokaanu jullitu jigéen murit bu jigéen day topp ndigalal borom këram waaye nag bu mu ko digal mooy yàlla de mooy yàlla moom ku la ko digal nga bañ laa taata li maxluqin fi masiyatil xaaliqi soxna si jullit la murit la bu borom këram di wax ak moom ne ne dekk waaye sa borom kër di wax ngay baj baj lu ne nga dugg ca respecté woo ko bu dëddoo bu tukkee na aar këram aar sa jëm gannaawam bul ko war ci alalam <coughs> foo koy waaj jege na xeeñ xet ku neex foo koy waaj a jege na nga socc raxas sa gémmiñ ba bu ca di ko xeeñ foo sol yére yu set lu mu am na la doy waaye lu mu am dara ngay xool la keneen am loolu day yàqub diggante dee ko woon ak cofeel del taaru taaru li ci kanamam lii ma lay wax lépp waxi imaamul Ghazali la del teral sa mbokki boroom kër ak jege ñaaleem toujours dee ko wan ne sa mbir moo gën mbirum keneen ku dul moom jigéen ba nekkee boroom këram na ko ëf a ëf ba boroom këram daanaka woomul xel jàpp ne bu asamaan si roon daanu mën na koo tëj loolu mooy waru këru jigéen lum la defal lum néew néew nee ko jërëjëf sëñ bi yàlla na ko yàlla barkeel waaye lum la jox rek nga ne cell wàññeeku rek fas ci sa sër rek ne cell day xam ne nag sëñ bi yow doo sant xéewal nag ku dul sant xéewal nag bu yàgg rek ñu xañ ko xéewal boo ko jegee dee ko wonuk cofeel dee ko won mbégte heure boo ko gisee na ko wan ni ko gis la moo ma gënal bañ laa gis soxna si nga xam ne dafa taxaw fi ko diine taxaw loo bu muy yuqamtiku kër gi nga denn lu yëngu rek nga yéeg ci kaw miir bi këpp sa nopp wala yërlu yéem a xam lu ko lu xew ci kër dëkkandoo yi jigéen ñu baax du ko def toog ci sa biir kër na ëpp looy génn bul dugal ci biir kër gi lu neexul sa borom kër alxakimu tirmisi nee na salaahu salaa u nisaai fil buyuuti wa salaa u sibyaani fil maktab wa salaa u xuttaa i turuqi fii sijni alaakimu tirmisi nee na jigéen ju toll ci war a sëy xam nga luy defar mbiram ñu ne ko ah, mu ne dugal néegub sëy rek bàyyil sa dox beet bàyyil fee ngay dem ak nee na loolu lu tax mu am mu toog dugalal néegub sëy rek boo bëggee am jàmm gone nag bàyyil sa yéeg ba bàyyil sa cëpp cëpp déedéet yóbbul ca daara ja rek bu àll wa tegee ci poos eh, tegee ci poojam yi ñu forcé ko ngir mu mokkal isi bu alxuraan léegi tey dootul tala doxan doxan toog a taxawaalu àddukaal bi nag agresseur sa waaye yow bàyyil sa agression bii bàyyil yi ngay def lu tax mu bàyyi de ñu ne ko nooy def mu ne dugal kaso dugalal kaso rek soo bëggee am jàmm sa soxna rafetal noo nekkee ak moom la taafatul del wax ak moom wax ju ñeewante waaye na ko soxna si sàkku na waxal ak sa soxna wax gi ñëwén waaye na ko soxna si sàkku waaye waxuñ soxna soo xam ne nag day taxaw ne la bu dem rek ñëwaat de boo ne benn ma la téeméer waxuñu soo sa soxna isaarul mawadda sa soxna dee ko woon toujours ne ko sopp naa la waaye am soxna muy sikki sàkk bëgg nga ko wala bëggoo ko sëriñ bi téye woo ko fi te bëggoo jàmm nag wal bastu xilwa bokk na ci li la lislaam sat biir nit ñi moom dundal dundi nu waaye bu ngeen na nga ubbiku na nga ubbiku jëm ci moom ba mu xam ne xër nga ci moom wa taxaaful anni zàll sa soxna sëriñ bu bul def fu mu fekk fu solo rek nga woo ko nag daaj ko da ngay neex a dëkkal nag del jëlale léeg-léeg waaye sëñ bi bantu almet bu damm sax nga coow ci ba kër gi ba kër gi xumb ah bale bu damm sax sëñ bi nga coow fi ba xale yi ñëw toog xool bàyyi li muy wax nii lu mu doon déedéet kenn waxul lool nag taxaaful anni zalla wa iqaalatul asra del xàcc tamit ay pakastalam maanaam bii ko del toloore ah del ñoŋal ab deram gépp góor goo dégg mu génn ca mbedd ma naan sama soxna si kooku ni mu bone kooku tey nangam nangam kooku du borom kër bu baax borom kër day ñoŋal derub soxnaam kenn du weer sa derub sa soxna sa soxna moom ndeyam ak baayam sax sikki si nga xam ci moom waroo ko wax ndeyam ak baayam ndax sa soxna jural na la ay doom te doom yooyu say nawle lañ lu bon li ne ci biiram ndeyam ak bàyyam sax waroo leen koo nekk wa baslul mu woona sa poos bu amee lu bari na ko sax njaboot yëpp waaye sëñ bi denc denc 3 millions ci sa poos sa soxna na wuñ ko ak ba nga amee fanweer ak ñeent fukk loolu baaxul wa ikraamu ahliha ay mbokkam tamit na nga leen teral teraanga ji yeew ak nit waaye ñoom it bu ñu xuuse nañ dem seen place xoolal jigéen ñu bari léegi seen yaay yi ñoo leen xañ barke jigéen ñu ci bari seen ndey yee tas seen sëy yi ñu ci baree bari seen ndey yi ñoo xañ seen sët ya barke lu ko waral seen doom ñoragul yeewoogul ba xam ni ñuy sàkkoo barke bañ koy xam dana fekk ba yooyu mbuus jéem nga jéem mënoo sa soxna dee ko dig dig rafet ne ko yàlla baax na yàlla dina soppi jamono muy rafet du ne wa siddatul xayra bokk na ci sa dundin ak sa soxna dundin war a dee ko fiire xam ñu bari dañoo foog ne fiir baaxul sëñ bi ku fiirewul sa soxna bëggoo ko jigéen ju mën a doon nga nekk ak borom kër te du la fiire sëriñ bi xamal ne ki nga nekkal bëggu la ku la bëgg fiire la xam nga fiir lu muy teg mooy ku bañ lu bon ja ku bañ lu bon laal la ku bañ lu bon laal la faaw mu fiire la